min seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim mbokk yi nuy seetaan te di nu déglu dellu siwaat nañ fii ci sunu jataay bi ñu baaxoo ànd ak yéen ñu di ko amale fii ci sunu site bi ni wax 24 ak di émission bu nu tudde Madinatu Ilmi ñu ci waxtaane lépp loo xamante ni lu jëm ci diine ak actualité tey ji nag ñu bëgg a waxtaane ginnaaw bu nu siyaaree wax inna lillahi wa inna Euh, dellusiwaat fii ci jataay bi ngir fas yéenee def li nu tudde rendre hommage wala fàttaliku wala def témoignage yoo xam ne dañ koy jëmale ci jëmm ju tedd joo xamante ni ju fi nekkoon la wax ci liggéey mu di Serigne Cheikh Béthio Thioune Serigne Cheikh Béthio Thioune nag ku nekk xamoon na ko ci yoonu murit <coughs> xamoon koy tamit taxawaayam ak pasteefam ci buntu kër Serigne tuuba Cheikh Saliou Mbacké mu jaayante woon moom ci lépp jaayante woon moom ci liggéeyal ko waaye jaayante woon ak moom itamit ci topp ko jaayante woon ak moom itamit ci fas yéene lépp lu ko sëriñ bi digal mu def ko li nu rëddee yoonu murit te ne sëñ bi wax na ko sifaatu saadixul muridi arbaxatun jàpp nañ ne bu matalut yépp am na bu ci matal mooy asitxu mahabbati seexi mooy bëgg sëb sëriñ te loolu ku nekk xamoon na ko ci bëgg gum bëgg sëñ saaliw jàpp ma ne bi mu fiy nekk di dund ku ko gën a bëgg sëñ Saaliw dëgg dëgg dëgg yomb na li nga xam ne saxaaba yi li leen yonante bi salaa salaam waxoon ne leen kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul dama ko gënal ndeyam gënal ko baayam gënal ko boppam waaye Seex Béthio moom sëñ Saaliw ko gënaloon ndeyam gënal ko baayam gënaloon ko boppam te bu fekkoon ne bëgg sëñ Saaliw maanaam bakkan la laaj kon Seex Béthio dina joxe bakkanam te loolu jàpp naa ne def na ko ndax li mu ko defee mooy topp na sëñ saaliwu ba jóge fi bëgg sëñ saaliwu jàpp naa ne li ko sëriñ saaliwu jaraloon gëw mën a jaraloon na ko ñu baree baree bari xañ na taaliba bu nekk sa jaraloon na ko waaye fi mu ci àggoon ci xër ak bëgg ko gëw mën a ñu baree bari àgg nañ ci alalam fekkewu ko doolem fekkewu ko dara fekkewu ko te bokk na ci liñ koy nettaleel bi muy laata jébbali ci sëñ Saaliw doomam bi mu amoon am na nu mu leen tudde woon waaye am na ci ñu bari ñoo xam daa soppi seeni tur tudde leen sëñ Saaliw te pourtant loolu de araamul dagan na ñam tudde woon loolu kii la yée ñi nga xam dañoo dugg ci lislaam sax ñu ci bari soppiwun seen tur yonent bi da leen a bàyyi ak seeni tur kon moom bu defee loolu mooy ak xëram ak bëgg sëñ Saaliw sëriñ Saaliw tamit gërëm na ko lu bare bare bari loo xamante ni du def mu baalaxa waaye gis na nañ émages yi sëriñ bi di ko jox ay barkeelu di ko wane na ko sant na la digal taalibe yi nekkoon ci xel koom yi tamit ak i taalibe de leen ñaanal Seex Béthio ñaanalal leen ma ko kilifa gu mu mos xami tamit ne bu la fa yóbboo nga ñaanalal ko Seex Béthio Sëñ Saaliw yi wax na ko yóbbu na ko ci kilifa yu bari Seex Béthio da koy nett lu bari Sëñ Saaliw moom wax demal seex sëñ son yi bu ñaanal la demal sëñ Abdou Lahat demal sëñ Abdou Xaadir ku nekk jàpp naa ne loolu koo bëggul doo ko defal koo am bëggalul ngërëm bëggaloo ko lu baax doo ko booleeg ñu baax ñi di ko taqale kon Cheikh Béthio jàpp naa ne taalibe murit la woon boo xamante ni bu dëggaloon ci alalam ci léppam tey nag wàcc na liggéey yal na ko yàlla wane leeg Serigne Saliou mu dëkk ak moom ak yonante bi ak Seexul Xadim bis bi nga xam ne moo di bis bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko maasandoo xam ne ndigalul sëriñ bi la gëw ma ne kenn mënoon na ko ci muy màggal ak màggal màggal gi nag dañ koo jàngale ci ñetti anam walla ñaari anam sëñ bi dafa waxoon ne li dale ci giléem ba ci ginaar lu ci waaye am na ma ko ci defal waxoon ni tamit bis bi bu dikkatee na ngeen ma ko fonkle te santle ma ci yàlla jàpp naa ne kenn fi ñu toll ñu taxaw di dund ci àdduna fi ñu toll ci yoonu murit gëw ma ne kenn ñeme naa taxaw wax ne moo ëpp Seex Béthio lu mu rey ci ay nag ci màggal loolu moom gëw ma ne kenn mën naa taxaw rek yëkkati loxoom ne li ma rey ci nag li ma def ci bisu suñ Tuubaa ci nag kenn def na ko loolu man gëw ma ne xalaat nit xalaat na ko fi ñu toll kon loolu day wane ne rek même bu fekkoon ne nit am na ko toll noonu wala ku ko ëppale sax maanaam li ñuy wane mooy kon Seex Béthio jàmbaar la ndax bu fekkee ne dem nañ ba loo xam ne dañuy jàpp ne kenn mënu ko wala kenn defu ko waaye jàpp nañ ne moom def na ko kon dañuy wane ne jàmbaar la bokk na ci bernde ku ko gënoon a man ci yoon wi loolu ci yombut woon te am na ay témoignages yu ndaw yu ci am te joxe lekk joxewu ñam fu nekk la baaxe waaye baaxate na ci njabootu Sëñ tubaa di ko def ci yoonu Sëñ tubaa ndax Sëñ Tuubaa jëf du fi sànkoo jëf du fi naaxe am na xale yoo xamante nii ñoo koy nettali seen bopp ñu ne université la nekkoon ay étudiant dañ daan jàng am bourse seen bourse yooyu lekk pour añ ci ak reer ci xaju ci woon waaye ñoom nin daan def dañ daan jóge université ñëw Mermoz buñ dikkee danañ fa lekk loo xam ne buñ doon jënd ci seen xaalis duñ ko mën a jënd kon jàpp naa ne loolu ku nekk xam na ne lu baax la ndax joxe benn tibbu ñax ñam sëñ bi wax na ko ci masaalik nee na wa luqmatun tabat na jaariya Euh, ni bayit wi àggee mooy képp koo xamante ni nee na benn tibb ñam nga jox ko nit moo gën nga tabax junni juma wala téeméer lu ci mën a doon rek loolu day wane bari gi euh, ñu bu ñuy tudd ay téeméer ak juróom-ñaar fukk loolu day aada ci naar yi ñuy tudd lu bari noonu wane na lu bari la waaye yàpp naa ne ëpp na ko sax kon Cheikh Béthio bëggoon yi tamit sëñ saaliwul lépp luy tax sëñ saaliwu dongo yi am na ko ma mos a nettali ne ma ñun bi ñuy nekk ci daara ji jamono yooyu nee na am na ci jamono am ndab yi nu daan def euh, cere di ko def di ci yàq ay lekk nee na bu fekkee ne danoo togg cere def ci ñeex mi nee na suñ sottee ñeex mi day euh, day day day dem ci suuf ndax amatuñ bool yu baax nee na bool yi buñ sottee nee waaye bi ko Cheikh Béthio yëgee nee ay bool yu bari yoo xamante ni boobu armiñong yi mooy boole armiñong yi nee na safar yooyu ci li leen wutal ki ma ko nettali doomi sëñ Thierno Diouf Lambaye la moom it làqu na pour doon wax sëñ Abdou Fatah neel na ko yàlla xare àjjana nee na bu nu boolee yi mujjoon na bu nu ko mosaane kii nee na bool ci kaw garab gi lañ ko daan takk teg bu nu ko raxasee ba noppi ci lañ ko ndax fonk gun ko fonk liñ lay nettali ci xeet yu mel noonu ne sëñ bi daana ñëw ngir bëgg mbiskit wala bëgg lu mu jox donga yi di xalaat fan la koy jële wala nangam nee na am na ko mas a yónni ne ko demal wuti lu ma jox donga yi dama rus fi toll ndax dikk naa te awma dara lu ma leen jox xaw am kerte ci donga yi moo tax mënuma leen a gis yabal leen yabal nee na bi nu demee bi kooku demee di wuti mbiskit bi muy laata ñëw nee na la Seex Béthio indi kabiyob mbiskit ak ay banaana ak pom lu nekk mu indil ko sëñ Saaliw dafa dikk fii ñu ne ko sëñ bi dem na njàpp ndal loolu nag jàpp naa ne du jëf juy sànku te loolu yoonu murit loolu lañ ko xamee mooy joxe ak dégg ndigal jàpp naa ne sant nañ ko xel ko mbataay sëñ Saliou ci boppam am na ci jamono boo xam ne sëñ Saliou moo jóge fii ci nin ko nettalee dem yeewil ko boppam yabal na ko ci sëñ moor Mbay Cissé ngir mu ñaanal ko kon kilifa yooyu ñuy tudd day wane ne Béthio amoon na ngërëmal sëñ Saliou nekk gi mu fi nekkoon nag doy na sëkk bu fekkoon sacrifice am li dundam gépp da koo jëloon def ko ci màggaluk sëñ Tuubaa doy na doy na ndam jàpp naa ne bu fekkoon danoo wax fii ci àdduna bi wala ci Sénégal ku mës sa lekk ci ñamu maanaam ku mës sa lekk dërëmam wala ñamam néew na lool ko ko mën a wax bari nañu ci jariñu lool lool lool taalibe yi ko sëriñ Saaliw boole loo ne tamit mu defoon ci ñoom loo xam ne lu kii la xam nga ab taalibe bu fekkee bu feebaree kenn du la ci njëkk bu amee tudd kenn du la ci njëkk yaa koy wutal dëkkukaay bu jaaxalee ci wàllu fu mu war a liggéeyee nga wutal ko fu mu liggéeyee ba am xaalis kooku loo desee moom taalibe wax dëgg yàlla loolu la bokk na ci liñ ko mënal ndax fële ci yemal xiyaam moom sëñ tubaa rek ko fa mënal sëñ Fallou daana ko wax daana wax ne fee moom borom baraag bi rek moo fa man kon Cheikh Béthio ñu ngi koy wax na dal jàmm fa mu nekk na tëdd tëdd bu jekkaay noppalu ci wetu sëñ Saliou bëggoon na sëñ tubaa lool <coughs> doonoon xol bu rafet tamit mësul woote dara ci xew xeetu baatin maanaam li gënoon a li nga xam ne yàlla def koo bëgg yàlla def cee fiir tur yëpp al asiisu al al nu tuddati al karimu yooyu yëpp yàlla nangu na ko ko tudd nakk ci melam waaye al kibro loolu yàlla def cee fiir maanaam ku rëy rëy moom yàlla def ko bañoon te Béthio loolu yàlla dindi woon na ko ci xolom Cheikh Béthio koo xam ne da daan am nangami at juróom-ñett fukki at wala juróom-ñaar fukk mën a taxaw di fecc baat bi nit ñi gën a bëgg te yàlla gën koo bëgg ci jaam yi suñ borom daf koo def loolu mooy sant la in sakartum la asidannakum jàpp naa ne mbooloo mi yëg li ko yàlla mayeen ci wërsëg danaan sant yàlla waaw bu ko defee sant yàlla ci li ko yàlla defal loolu lu kii benn bi may tëjee ndax ginnaaw kenn mënta wax lépp li may tëjee mooy ci njabootam loolu moom dama koy def muy message boobu dama koy dénkaane boo wane leen ci njaboot gi ci laa bokk ndax njabootuk sëñ ñu fexe boobu li fi sëriñ Seex bi bàyyi woon ñu ensemble ko fexe mu nekk benn ñoom ñu nekk benn ñu xam ne Seex Béthio mag la woon yenn nat yi nga xam ne nit ñi waxoon nañ ko muy ay njuumte wala dara te loolu kenn mënu koo ñàkk loolu ni xam ne mag la woon te ñi ko daroon xañ na du ñuy boroomi xel ak ñu ñuy defar loolu bari na ci lu bari lu mu yàq waaye loola ñoom mën nañ ko ñëpp mën nañ ko koo nangul kii ko ndax mag la woon te loolu day dal ku nekk mag moo xam ne amoo ay xaa nit yi mag ñu rafet ndax ñu ci baree bari écarté woon nañ njabootam jegewuñ ko woon ñenn ñi xañ na loolu mën naa def lu baree bari def ko waaye fi nu toll ñoom nan xam ne danoo war a booloo nekk wenn say li fi seex bi bàyyi woon ñu saytu ko te fas yéene ànd dem liggéeyal sëñ Tuubaa ndax ñoom kat seex bi wàcc na li ko waroon lépp def na ko ñu xam ne ñoom nag seen ndër la ak seen dëgër mooy sëñ Touba ñu xam ne njaboot gi njabootu sëñ Saliou la kii fi nekkal sëñ Saliou ñu topp ci ginnaawam di ko déglu guddi ak bëccëg ñu ànd liggéeyal Seexul Xadim lii daal ab dénkaane la bu gàtt boo xamante ni daf koo jëmale te ki leen koy dénk seen mbokk julli la seen taalibe seen mbokkam taalibe yéene leen lu baax li ngeen xam ne seen waajur am na ko moo tax muy waxee nii lii nag ñu ngi ñaan ñu seytaane yàlla dàqal leen ko ci njabootu Cheikh Béthio yàlla jële ko fi te yàlla selal te yàlla defar ba ñëpp ñu àndandoo doon benn say di nosandoo di mott mottali seen liggéeyu waajur li ko waroon moom kat wàcc na amatul dara luñ koy topp yéen rek yéen a ci des kon li ci des seen mbir la kon ngeen ànd ñu àndandoo ñun ñëpp xam ne njabootu sëñ saaliwu la njabootu sëñ saaliwu nag mooy nekk gannaaw ko sëñ seex saaliwu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi soxna awa moo doon réaliser émission bi soxna xadi ñang moo ko doon monté wasalaamaaleykum wa rahmatullah murtajan minnatun lana jariun